que ici, il n'y de personnes âgées. dama woo ñëpp ñu bokk ndey bokk baay amul kii ëppal na 35 ans amul kii am na 40 nañu ànd ñun ñëpp ñu xam ne réew mi moo soxla c'est le pays qui a besoin de sa jeunesse c'est le pays qui a besoin de nous donc nañu ànd laxasaayu lëngoo continuer jàppale président Macky Sall parce que moo jig réew mi moom lañ ci moom lañu yaakaar pour l'émergence du Sénégal lum ñu ci won doy nañu nee nañu ku la jox ndékki jox la añ ku la diggee reer nga mën a toog xaar ñun président nous sommes avec vous jusqu'à l'extinction du soleil dama woote tey assemblée générale bi pour ne leen chers il est temps war nañu jóg gën laxasaay jàmbaarloo ak opposition bi je suis sûr et certain xam ngeen lan moo ñu manqué une solidarité agissante moo ñu manqué suñu biir buñ ko amee buñ ko amee l'opposition ne pourra jamais nous résister ñoo leen gën a jàng fuuf ñoo leen gën a xam luy état président Macky du moromu seen baay donc chers chers camarades dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd nekk benn jàppale ministre yi nga xamante ne président de la république tabb na leen à par notre ministre de tutelle le grand frère Pape Malick Ndour gis nga bu ñu defee loolu affaire bi c'est président la ñu gëm suñu lépp lañ ko jox bu ñu tànnalee ministre ñun dañu war a jàppale ministre boobu te dañ ko war a nekkal ay bay faal kenn waru ko laal ku ko bëgg laal ci ñun lay jaar d'abord pour ko def dama jël exemple ci suñu ministre tutelle Pape Malick mais mënoon naa ko wax ci le ministre Birame Faye mënoon naa ko wax ci ministre Alioune Sow mënoon naa ko wax ci ministre pour vous dire que bu ñu àndee ñun ñëpp te muy dëgg ci ñun ñu bàyyi division bi kenn du ñu attan. nous sommes prêts êtes-vous prêts chers camarades nous sommes prêts nous sommes prêts nous sommes donc prêts monsieur le président à accompagner votre gouvernement. nous sommes prêts également, Président, à continuer ce riche engagement qui anime la jeunesse républicaine. nee naa leen nee naa président la ñu gëm lu mu wax moom la ñuy def sans pour autant. ñu am ci ay remarques yu ñuy def il faut mu leer la loyauté doit être totale doit être totale elle ne doit pas être à géométrie variable dinañu jàppale président Macky Sall ñun ñëpp laxasaayu mais dinañu jàppale gouvernement bi nga xamante président Macky Sall tabb na ko fu mu yem ne yàlla xam na ne bu ñu nekkee benn ñii di def seen tournée yi seen genre tàggatoo tàggatoo la def de tàggatoo def parce xam nañu lu ñu def ils ont affaire avec la justice dañuy tàggatoo xam nañ fu ñu jëm bu ñu boolowee suñu doole bu dee dañuy tàggatoo di doxantu yàlla xam na ne fu leen wax ne duñ fa duñ fa jaar te moi je veux qu'on soit ensemble pour stopper net ces enfantillages de l'opposition. Nous sommes à Mbour, nous sommes à Tambacounda, nous sommes à Ziguinchor, nous sommes à Linguère, nous sommes ici à Dakar, nous sommes à Kaolack, nous sommes dans le Wallo, mais également nous sommes ici au centre vers Kaolack Fatick et cetera bu ñu bëggee opposition bi bañ a continuer continuer seen seen tàggatoo gi ñuy def di fatt nit ñi di barrer les routes di créer un désordre public ne leen pare ngeen ñu dem ci ba barrer la route à ces gens là bi ñuy fii. dañ ne woon troisième mandat du fi amee xam ngeen arbitre bi conseil constitutionnel ak les urnes ce sont les deux arbitres ce sont les acteurs qui séparent les concitoyens dañoo xeex ni troisième mandat du fi amee conseil constitutionnel ne ñu yéen jàngoon leen xamoon leen luy droit maître Abdoulaye am na droit am troisième mandat président Macky Sall dem campagne yi parce que du du du werante ak conseil constitutionnel du xuloo du werante ak kenn du xuloo du werante ak les institutions parce que dafa respecter institutions yi dama ne conseil constitutionnel googu c'est la seule qui est habilitée à nous dire le droit du man du keneen mais ñun dañoo déglu opposant yu bëri lu mel ne booy boobu jiite Ndakaaru Barthélémy Dias dafa le président Macky Sall à un autre mandat te mënu ci dara ba léegi waxuñu ne kooku dëkk Ziguinchor nu mu tudd xale boobu te te bu leen fàtte bu leen fàtte ne bu am lu def moo ngi kaso ba te ci ñun la bokk bu leen fàtte Khaliphone Sall que nous dafa am ak problème benn xale bu jigéen moo ngi moo ngi voilà léegi nag Sonko Sonko lu mu def lu mu def lu mu def dafa war a dem kaso dafa war a dem kaso léegi nag ñun moom Sonko moo ne le violeur la moom moo ne le turbulent la Sonko moom moo ne Macky am na droit à un autre mandat moo ko wax léegi le grand constitutionnaliste Babacar Gueye lu mu wax nee na le président Macky Sall dara tënku ko pour mu wut beneen mandat waaw ñooñu wax nañu loolu ñooñu wax wax nañu loolu sàkkamtuma ñun ñi nga xamante ne dañoo gëm ne président Macky dafa war a am beneen mandat c'est un deuxième quinquennat war a am ñun ragaluñu li ñuy wax c'est le droit et nous disons droit comme le conseil